fàttaliwaat gouvernement bi fàttaliwaat aussi son excellence le président Macky Sall xam naa fàttewu ko mooy engagement yi nga xamante ne jëloon na ko mu jëm ci arabisants yi engagement yooyu ñu ngelawaay nañu fexe engagement yooyu noonu ñu du ma sax wax ñu respecté ko mais ñu ngi ko koy rappelé di ko ko fàttali xam naa fàttewu ko pour engagement yi mu jëloon moom xam na ko ñun xam nañu ko ñu fexe ñu euh, ñu def ko ni mu gën a gaawee beneen bi ñu gis ne aussi am na yu bëri yi ngeen xam ñu fi ne moo xamante ne arabisants yi war nañ ci mën a bénéficier wu moo taxoon ñu proposé woon gouvernement bi benn projet bu tudd PIDA projet de l'insertion des diplômés en arabe boo xam ne objectif bi mooy jël 5000 diplômés en arabe budget bi global mu ngi toll ci 17 milliards diire projet bi dana mun a dem ba 4 ans nga xamante ne dana mën a jël 5000 personnes ci différentes structures état yu fi nekk donc projet boobu incha allah bëgg nañu rencontre boobu ñu am ak le président Macky euh, euh, mu mu mu mu ñu joxaale ko ko donc en tout cas ndaje la pour waxtaan ndaje la pour préparer ndaje la. pour dajale ñëpp parce que bëgg nañ bu ñu fi jógee bëggatuñu kenn ku naan man bokkuma ci moo tax ñu bëgg ñëpp yëg ko ñëpp daje préparé wu incha allah ah ñu ngi jox président rendez-vous nag ndaje bu ne am na fi programme bu ne am na fi mais bëgg nañu bii moom bu ñu ci jógee ñu xam ne vraiment jafe-jafe yi arabidans yi doon jàmbat ci année yëpp réglé naw jafe-jafe yi yu ci ëpp solo mooy manque d'emploi arabidans yi da ngay jàng am bac am BFM e am licence am master nekk ingénieur man mi wax yow ni man la ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne kii nee na laam la am kii euh, mathématicien la kii riyaadiyaat la kii technicien la kii infographe la ñeneen ñu ci bëri mais diplôme yi ngay am du la permettre nga mën a insérer wu ci administration sénégalaise li ko waral parce que arabe nga jàng te ku nekk xam na ne Sénégal langue officielle bi mooy français mais war nañu xool jafe-jafe yooyu noonu ñu xoolal arabisans yi fu ñu war a dugg misaal bi ma leen di jox tey euh, délégation générale bu pèlerinage bi am na luy tolloog 300. agence yoo xam ne dañu yóbbu nit ñi màkk pourquoi agence yooyu mënuñu recruter ara visa yi ñu fay dem comme ay missionnaire loolu benn la ñaareel bi pôle emploi yi ngeen xam bu géejawaay ngi fii seen wet pôle emploi yi pourquoi mënuñu faa jël ay arabisants ñu nekk fa représenter arabisants yi di traiter seen dossier di leen bindal ay projet di leen defal business plan ba nga xamante ne dañu mun am fu ñu xëy loolu mooy jafe-jafe jafe-jafe manque d'emploi la manque d'insertion la moo tax ñun bi ñu jàngatee jafe-jafe gis ne jafe yi mënuñu koo régler individuellement lan lañ ko mun a régler mooy def benn projet moo tax ñu créer benn projet bu tudd PIDA projet de l'insertion des diplômés en arabe bi ñu jeg euh, dajeeg njiitu réew mi wax nañu ko projet bi moom ci boppam moo ñu ne nañ ko indil projet bi kon ndaje bi ndaje de rencontre la d'échange et de partage avec chef d'État mais aussi ndaje la boo xamante pour remise projet boobu noonu ba nga xamante ne wax dëgg yàlla arabisant wu Sénégal yëpp danañu ci mun a gis seen bopp engagement yi président jël yéen ñëpp suivre ngeen ko mooy conseil des yu bëri mooy nañu xool jafe-jafe yu yi nu ñu koy réglé maanaam ci wàllu emploi ci wàllu insertion ci wàllu ñu am xëy ku nekk xam na le diplômé en arabe yi nekk Sénégal dañu am problème mu xëy problème yooyu nag président jëloon ci engagement problème yooyu yëpp incha allah dana ko réglé moo tax ñu bëgg problème yooyu daal engagement yooyu daal ñu jëm ci ni mu gën a gaawee ku ci nekk xam na ne réew mi fii ak weer mu ngi jëm ci ay élection mu ngi jëm ci kii élection te élection bu xesee taxaw mun naa ne débat yëpp même média yeeg journaliste foofu la jëm mais bëgg nañu balaa ñoo yëgg foofu au moins rencontre boobu am ba nga xamante ne ñun moom balaa ñoo dem ci élection jafe-jafe dana fekk mu réglé incha allah am na yu bëri nag yu mu def bac arabe bi université arabo islamique bi ENA bi concours élèves yu bëree bëri yoo xam ne wax dëgg yàlla def na ko bi ci mujj aussi gis mu ngi commencé jël des di Euh, Màkka bi ki ko yore en arabisant la mu ngi def ay jéego yu bëri mais jéego yu doyul nañu gën a baral jéego yi li ëpp gën a baral jéego nag mooy rencontrer les diplômés en arabe bàyyiwuñu kenn bu ñu ne diplômé en arabe mooy ñi bokk ci partem ñi bokk ci opposition ñi bokk ci nga xamante ne bokkuñu fenn ñun ñëpp ñu daje euh, comme ni ñu ko waxee sànq al ittihaadu quwa ñu dajale suñuy force dajale bu ñu suñuy doole rencontre proposé ko wan ko ne ñun aussi jàng nañu xam nañu mun nañu jàng nañu xam nañu mooy won ko lu leer loo xamante lii buñ ko tegee mooy arabisants yi danañ ci mën a liggéey li ci ëpp solo mooy ku la ne projet de 17 milliards loolu du caaxaan 17 milliards fu ñu ko war a def ci 5000 personnes war na laaj benn étude. tey ñu ko lu am la ku ci nekk xam na ne lu ñu jàppul discrimination kay weesuwul yow benn sénégalais mu am ñaari sénégalais yi amul kii dafa jàng français kii jàng arab mais da bokk ak nit ngeen juddandoo ci koñ bi màggandoo mu dugg école français yow nga dugg école arabe. da ngeen dem ba ngeen am bac moom mu dem université yow amoo foo dem loolu dis loolu lan la discrimination la beneen bi da ngay jàng bitim réew ba ñëw ku ci mel ni ñun ñu fi taxaw ñëpp sa moroom yi nga doon jàngandoo en étranger léegi ay directeurs généraux lañu ay diplomate lañu ay ministre lañu mais yow boo ñibbisee Sénégal da ngay nekk économiste ñu lay waxee imam nga nekk euh, ingénieur ñu lay naan imam nga nekk imam ñu lay wax imam moo tax affaire yi jaxasoo ba nga xamante ne doo xam meeg imam beeg oustaz beeg que loolu moo waral discrimination bi langue bi du du du barrière du facteur manque de volonté moo am manque de volonté gouvernement bi dama ne Sénégal bi ñu jëlee indépendance dañu waroon a toog xoolaat réew mi waat doomi réew mi yëpp ñu impliqué leen tabaxaat réew mi ba nga xamante ne ku ci nekk danañu la laaj li nga jàng ki jàng anglais ki jàng arabe ki jàng parce que langue langue la rek tey caméra bii kii caméraman bii nii boo demoon ci pays naar yi doo xam ne kii français la jàng wala arabe la jàng métier la ñun problème qualification la diplôme arabe yi am qualification bi nag ñun am nañ ci solution mooy li ñu proposé le président de la république mooy PIDA bi loolu nag gis nañ ne wax dégg yàlla depuis 4 mois ñu ngi ci doon liggéey pare na ñu ngi ñaan président rek engagement yooyu mu jëloon ak ñun daal nañ ko respecté mooy gouvernement bi premier ministre ministre yi ñëpp ku ci nekk li ci sa rôle nga joué ko ba mu mat loolu nag mun mënu ko def bu dul président ñun li ñu manoon def nañ ko mooy daje daje nañu xalaat dara xalaat nañu dara état moo ñu mën a defal moom moo ñu mën a porter portance institution la ñu soxla ba nga xamante ne li ñu teg ñëpp arabisants yëpp danañ ci gis seen bopp loolu moo waral tey ñu commencé rencontre démarrage waajal bés bi fii ci Kër Massar daje fi l'ensemble yi nga ay arabisants lañ des organisations des diplômés en arabe yu Kër Massar pour que au moins ñu xool ndaje boobu nan lañ koy waajal incha allah li ñu bëgg président nag kenn ku nekk xam na ne président kenn du ko proposé calendrier mais liñ koy proposé li ñu bëgg incha allah ci biir mois de juin bi ñu jëm ndaje boobu ñu am ko ak moom ba nga xamante ne arabisants yëpp danañu mën a ñëw fekkee ndaje boobu noonu ci nu mu gën a yaatoo